ndeysaan waaw waaw maam lamp àddina fal la da bàyyi fal takk jóg kii ñoqli bët ku lu tënal kii tàmbale ci maam seera faal di yem ci maam seera faal bëgg ko te di ko bëgg tey bëgg di bëgg di bëggale tey ñoqli bët ku lu tënal di ko kenn ndax kenn la maa ngi leen siyaar lu yaatu bëri wala ngaan këpp tuuru ñëpp xaj ci cuujoo cuuraayoo nag barka maam abori naan yàgg leen yokk leen wér leen dund leen defar gur yàqu ba fa maam lamp àddina faal bàyyi faal takk jóg kii ñoqli see ci leer maam naan fes mes mentañ naan may moo leen cuujoo ci àllar naaw ji naan leen loo leen dund rek doot ndax ki ni dund di dund dund di dëgg muy sëñ Bàmba maam Serafal muy yàlla mi ñu moom dañuy sax dàkk nag di ko bëgg te bëggante jàppante safante te xam ne maam képp fi saf yàgg leen waay waay waay di dund maam di tàmbale ci maam di yem ci maam te koy cuujoo naan cuujoo raayoo tàqamti ko nag naan milenoo daroo ñu ne duñ ko dóor naan ko raayoo diwoo ko parfum tocc mi koo sangoo sangoo xëppoo salamoo muuroo ñuy wax ñu cuuraayoo ñuy wax ñu daal di cuujoo ndaysaan ko loxoom daal di pikiiroo sunu maam am ci doos bi muy faal yàlla faala ñu wa man Seera fal ko ko ya eh, la fale la de ay ku bilay ku ko ko fate ta fale wo ko dan lay fate ta ken fale. la faale te ñëpp lay kon ku bëgg dara fo nga japp mam man am dara bu boba sax dara jo sor ku la gis ak bo solo dara no xamni ki borom dara la moy la lay mam di defal dañuy tambla ci mam te yem di mam ma ngi sar seen jëmm yi dara neew fi lool mam Seydi ibrahim Fall Lamp Baal Mouridina mi nga xamni ne mo lay dund lo yalla je ndax yalla kenn la dama am see rafaat daa ñëw nag def fi loo xamante ni waaw mooy lépp rek faa ñu koy kennal nag di sar ma daay ma daay ñoqali ku lu tëral maa ngi cuujoo seen jëm yi lu yaatu te bëri wala ngaan kapatuur ñëpp xacc takk jóg takk jóg takk jóg liggéeyal maam bamba ak maam see rafaat lamp abori gaal jëriñ daam ñëpp barke mbam sóoru faal sar sarale saraat naan fes mes mental ñoo man muy muy gaaw lool man mes